jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw ba ñeen nuyoo seen taxaw seetlu dikkati na li gën a fës ñu baaxee leen ko ami internet Dakar live ay ñu tàmbalee kook mbirum Dieyna Baldé gone seen petit gallé bi moom mooy Bril Fight Fo gis nañ ne yàggul dara Bril moom produiroon na xale booboy di Dieyna Baldé ñoom ñaar nag dañoo dëkkoon foofee ca Ouest Foire dokk nag li nga xam ne mooy kër ca biir wax ji sax ñu ngi xam ne ñoom ñaar dañoon génn maanaam dañoon dund mbégeel ki nga xam ne nag mooy Dieyna Baldé ki nga xam ne moo nekk Bril Fight Fo ñoom ñaar ah, ah, nag mbir mi métti woon ko lool waaye tamit bawu ko benn yoon ñu toog ba ci biir ah, gis ne Bril ñu ngi koy envoyé yenn message yoo xam ne dañ ko doon menacé waaye tamit di ko envoyé ay vidéo yoo xam ne ci téléphone boobu ñu sàccoon di iPhone Pro boobu noonu ba Bril tax na porté plainte foofee ci li nga xam ne mooy division spéciale de la cybercriminalité ah, ba mu ko defee nag mbir mi ñu topp ko si lañ topp topp ki nga xam ne mooy Dieyna Baldé ak Ali Baldé ah, képp leen ne leen nag kaay leen na ci mbir mi te daa mel ni seen loxo mu ngi ci ah, na man mii la luy njéeg maa njaag ndax nag ki nga xam ne mooy Bril Fight foo dañuy dund mbégeel te maa ngi moom du démb tey la soogu ñëw donte nag moom mu produire sama son bi ma mujj a def ñun ñaar ñoo dëkkoon foofee ca weesu faar te yàgg nañ na ma moytul waa ji parce que da lay fooy tax na sax sama mag Ali Baldé na nag jot na nag nga teg ak plan si la ko xalaatee mbir moom na ah, ko ah, ah, dafa infidèle ndax nag moom du bàyyi benn yoon nag waa di ko fooye mbir mi daal mu ne jàpp ne mbiru fooye la ko jàppe woon ba tax na moom tamit mu jéem a teg yenn tamit di nga xam ne mooy bilfaat foofu waaye tamit mbir mi neexu ko benn yoon ndax moom dañ kaa mujj kepp moom magam di Ali Baldé comme ni ma ko waxee sa beneen moom nee na musul porté ah, Ali Baldé waaye mbir mi nag métti na lool waa Kolda ndax nee na ñoom ah, saa su nekk bu ñu xëy rek dégg Dieyna jàppal fii jàppal fële Dieyna moom kat ah, jot na nag nga bàyyi nga def parce que yaa ngi yàq dëru waa Kolda ñun ku ñu waa Kolda ku ñu xam-xam ñu su man nag du maa ko wax waaye waxu waa Kolda la ñenn ci jigéenu Kolda yi ñoo génn di wane seen cri de ca beneen wàllaa ba influenceur bi nag Adamo ñoom xamante nañ bu baax moo Dieyna bett nga ma lool yow nag Dieyna foogoon naa ne ku baax nga waaye lii yëpp nga def ni lu ñàkk fayda waaye ca beneen wàllaa ba nag sànni na ay xeer ki nga xam ne mooy Bril nee na Bril daal daa jàppe xale bi di ko xorom naan ko naa la produire a def yow booy jàpp xaj rek téel nañ la téel ndax yow ku bon nga yow jàpp sax rek di ko jaay lépp pour sa intérêt ba tax na sax sa beneen wàlla ba aadama woon nag nag ah, jot nañu xoolaat seen petit gallé nee nekk émission boobu noonu ah, nag mbiru Bill Fight foog Diana Balde ah, tax na fu mu nii Adamo sànni na xeer ñi nga xam ne ñoo nekk waa seen petit ndax ñëpp xam nañ ne Dieyna Baldé foofu la génnee bu ñu jógee ci loolu ñu wax ci mbiru masque yi nga xam ne euh, fu mu ne ñu koy def ci tefes gi euh, koy ak ñooñu ñi euh, euh, fu mu ne nag euh, ko fii ci Sénégal ndax buñ gagné rek Sénégal moo gagné mbokk ginnaaw coow lu doxoon ci njaboot bi dañ koy suul fii ko suul fële moom mujj nañ ko denc foofee ci armée Yoff ñu koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana na dee doon noflaayam ba tey ñu waxtaanee waxu dee ndax ki nga xam ne nag moo nekk foofee ca Touba ki a ki nga xam ne mooy Sëriñ Alaaji Mbàkke Sayid métti na lool lool bu ñu jógee ci loolu nag ñu waxtaanee tey ab tàkk-tàkk bu métti bu am foofee ca building administratif bu bees bi ñu tuddee Mamadou Dia foofee ca biir Ndakaaru Ndakaaru ah, da doon tàkk-tàkk bu yéeme xamuñ nag lu ko waral li ci topp lu ci mm-hmm. munti am daal mooy dinañ topp mbir moomu indil leen ko ah, mbokk yi nes tuut ñu bàyyi leen ngeen seetaan sama sama bi xam ne damaa mer jéena ba aan jéena yow jéena yoo lay waxal jéena lan mooy sa problème yow jéena Dieyna an a hersini yimɓe yo rusloo nga nit ñi yow waa Kolda yi yow nga nekk xale bu ndaw nekk parental yow juddoogoo yow chaque jour ay problème nga ñuy indil ñun ñun duñoo sax dem ba rus yow lan mooy sa problème Dieyna am ko doon problème maada lan mooy sa problème parce que damay wax olof di wax pël pour ñu déglu euh, olof pël ñu xam ne xam nga ñu xam ñu xam li may wax yow xale bu ndaw yow suñu kanam nga juddoo yow suñu kanam yow nga juddoo xam sa yaay xam sa papa xam sa mag muuneel nga xam ne mu ngi sëy Dakar gi deful kenn waxul kenn kenn xamu ko yow nga juddu barki démb nga def fi bu ne weng loolu pareeguñu ci loolu nga duggaat ci leneen yow c'est quoi ton problème anna helsini waa Kolda helsini sukaaɓe rewɓe Kolda a ngoroon probléme aade jeyna an cukale fof ngeen foɗɗare xale bu toll ni yow la mooy sa problème c'est quoi problème soo bis dafa jar lii xale bu ndaw nga nekk ak sa frère bi lëmb dëkk bi y pour ma yéen pour waaw. leen lii. mère ah. léegi lan moo tax ngay def lii. bëgg fu nit ñu. jaar jël ñool bu baax da ñu jaar. waaw léegi yow. accept léegi lan ngay wax waa koñ bi nag si lii lan lay waa koñ bi di xaar si lii ñoom. xaw ma ci dara kay lu dul defar rek ku mun ta defar ànduma ak yow. est-ce que yéen tamit boo jarul tey jii ni aujourd'hui hmm. ngeen génn def si benn séance si sëkk sëkkalu ñu xam mais tamit est ce que benn ba lii amee gis ngeen benn politicien mu ñëw wala gis ngeen boo xam ne bëgg nañu jàppale. moom day bu ñëwee laaj ñu suñu identité ñu yóbbu. léegi nag désormais bu leen jox kenn seen dante am leen fulla gis nga lii fi nekk wax ma leen gis nga ah. dama ni am leen fulla laa wax ku fi ñëw sa laaj seen carte d'identité ah. nga la ko joxul nag dara bàyyi leen ba jour vote bi ñeen ne voté ku leen neex ah. yéen a moom seen kat yéen a moom seen bopp kenn joxu la ngeen lekk voilà ok jël lii dafa ñaaw de xam nga lii maire bi taxaw fii lépp pour yoon ah maire mooy sëkk fii ndax pour yoon pour nit ñi am fu ñu lii nii moo dem moo dem Kanda moo dem Tamba ndax ndox mi fu mais lii yëpp si tali dafa war am ko ndox mi deñ xobal nga mais xool leen tali mbali mi fi nekk lii ay mbali ay mbali la mbalit mbalit xoolal xoolal lii yëpp ay mbalit damay bañ a dugg sax damay eh, a teg sama tànk yaa gis fii yëpp si mba yëpp ay mbari lépp mbari la waa kon bi tamit waa kon bi lii mënuñ ko sëkk mais balaa ngaa sëkk il faut que nga benn autorité bu taxaw ne la ah maa la bëgg dimbali dañu gën dimbali seen bopp comprendre ku amuloo lekk nooy sëkk ay ay mbedd ah ku amuloo lekk doo sëkk ay mbedd ndax nañu dañoo feebar yooyu dañoo bëri kalo ndox ndox may gën a salte kaw la waaye xoolal lii lii xoolal lii mbokk yi jërë ngeen jëf lii leen fi indi loon seen taxaw seetlu di leen sant di leen gërëm di ñaan jàmm ci réew mi di leen wax na leen wooy leen di abonné fii ci Dakar Live TV jërë ngeen jëf